léegi nag bi ñu ñëwee ba Tamba ba ndogu ba pare chauffeur bi ak ay apprentiem boyal fourno dugal ko ci cabine bi ci kanam ci bus bi bus baa ngi daw ñu ngi ataaya soo waxee ñu ne da ngaa bari wax man nag jigéen laa te kaar buy def 66 passagers cinq yëpp noppi kenn rek di wax day nuru leneen mais war nañ ci bàyyi xel ay accident yu bëri yi am ci yoon beeg xew-xew yi nekk ci jamono ji ku nekk di jël responsabilité di ko xëpp sa morom. bi ñuy génn Tamba ci gendarme yi monté laa ni woon buñ ñu arrêté di contrôler ma signalé leen ko fi ma toogee nag dafa sori bunt bi yàlla dogal biñ ñëwee ba foofu gendarme bi nga xam ne moo arrêté oto bi torcham la jël def ñu signal oto bi droite mu yore téléphone am di whatsapp apprenti bi wàcc dem ci post bi donc ñooñu aussi fañ toog lañ toog contrôlé wul j'étais tellement découragé que amatuma sax courage naan damay wàcc pour wax ak ñoom parce que gis naa ne déjà jënd nañ seen conscience boo ko fa waxee itam dañ lay jéppi ci oto bi mais dootul mujj fenn parce que lii war nañ cee wax te war nañ ci gën a bàyyi xel comme weeru koor lañ nekk. ndax bi ma ko commencé wax ki ma dendal ci boppam chauffeur la moo a njëkk ne lii man mi sax dama koy def da nga koy def nag taxul mu doon yoon parce que lii risque toujours ñu gis fi ay oto yi tàkk man nag maa ngi doog a xam ne ndekete lii moo leen di taal lii réew mi wax. te force de l'ordre yi ñu nekk si tali bi nañuy xool oto yi. ñoo ngi nii di doog a génn saanaar man Mbour laay ñibbi nii si guddi gi xam nga lii dara wóoru ci fi mu ne dama tiit ba sama bopp bi day metti sax mais eh, yàlla baax na jërëjëf ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax. établissement